ko bu baax. d' accord naka la ñuy def ba différencier mango bu ñu gazé bu ñu gazéwul wala yooyu yomb ta xam. ah yooyu nag moom jaaykat yee ci kër mën a xam. ñooy xam bii dañ ko gazé wala gazé ko. waaw gis nga rek. gis nga loolu. mais mhm. brochette damay xaar tuuti rek. daal mu gën a doore. voilà. Hmm? Ah, mun naa sax. petit bu tuuti geste. geste bi ñu dagg en julienne. mooy maanaam orange bi. geste xollit bi nekk ci kaw. waaw daal di jël sama sucre. ñu yokk coloration bi tamit il faut mu am sucre. sucre bi day dem ba caramélisé. wala dañ koy. sucre bi day caramélisé. mais ñan ñoo de nan lañ déconseillé pour ñu lekk euh, mënu bi parce que xam naa ne am na tuuti sucre. am na sucre waaw. jabet jabet ci kii moom franchement surtout ak beurre bi ñu ko suyee. Mhm. loolu. lii wul daal c'est pas conseillé même boo amul jabetam boo koy lekk bu ko lekk tout le temps. Mhm. parce que lekk boo xamante ne boo abusé ci lekk rek baaxul. da nga war di modérer une fois par semaine. mun nga mhm. ko lekk ah parce que yaram tam dafa soxla sucre. d'accord kon boog ñoom tamit nañu jël euh, conseil seen médecin. parce que ñoom ñoo mën a fi mu toll nii ñoom ñoo xarañ xam ne lii la ñu war a lekk wala lii. lii la ñu warut a lekk. sama jus d'orange jus d'orange waaw. def ci tuuti. nga day am saveur orange bi tamit. Mhm. mais nan nga jublu sotti orange bi nii directement. pour pour goût bi mën a génne mais tàggat nga déjà geste bi. xam naa ko. Mhm. mais boo defee geste bi tam da nga war a mën a def jus bi parce que geste bi kii bu muy dégager ak jus bi kii euh, sucre bu mu am sax bi. Mhm. oui. d'accord. ah tuuti rek. fexe niñ si jógee mu demati ci beneen masque ay sama mante lii ban ban ban mante la mante ordinaire la naana comme ni ñu koy waxee si wolof ma def ci tuuti mu am xeetu mante tamit ça sent pas bon si ça sent très bon <laughs> je vais en profiter sax xam nga jël sama apéro bi en attendant voilà ci seen rek mu mel ni mu ko génnee directement mhm. nag. bi yaa koy koy daal di def rek. Mm, tey moom toggalu leen brochette yàpp du jën brochette de fruits. waaw ah, balaa ñu koy gis jaawaat lekkoog lu ne yàpp. donc même processus bi moom la ñuy def pour suñu yeneen brochette parce que mangue bi des na pomme bi des na uh-huh. daal di koy jël arrosé ci tuuti daal di ah caméraman bi si ginnaaw muy wax ah ah Ritit ah, donc dañuy fàttali rek euh, que aujourd'hui c'est brochette aux fruits donc pas fruits de mer mais fruits. Euh, les les les bananes non pas de bananes aujourd'hui on a utilisé pomme pomme verte pomme rouge mm -hmm. et bien sûr euh, des mangues donc si vous voulez aussi au choix vous pouvez euh, mettre du melon melon ou poire tout dépend donc ñu utiliser loolu yëpp avec euh, des brochettes et tout, dépend aussi de la saison des fruits ok donc mën nañ ci def aussi ananas par exemple waaw mën donc ñu utiliser euh, li nga xamante ne moom la ñuy wax ay pointe bambou Euh, daggati suñu euh, fruit bu nekk daal di nag def mélange bi maanaam def benn pomme def benn mangue def beneen pomme verte ba mu mot kat ñu utiliser suñu poêle euh, def ci tuuti beurre daal di jël lu ni mel teg ko ci ajouté ci suñu zeste def ci sucre. jël jël suñu jus de citron aussi def ko ci agrémenté le tout ak suñu menthe donc mu pare xaw a doore tuuti ñu daal di koy disposer nii nag ajouté ci suñu. Euh, sirop grenadine. pour génne couleur bi rek. ah hmm, hmm. été bi. Ah. kon kan moo bëgg fii ma tey nag moom dama yaakaar fii lay taxaw nekk alkaati <laughs> ku ma ñaanul ku ma joxul permission doo lekk <laughs> sama sama cure bii laa yor xaw ma cure-dent la xaw ma pointe ku ma ci ñaan te mayuma la ba nga lekk dinaa la jam ci yaaka bu fi jege dama lay wax rek dañu bëgg lu neex. waaw des bu ñu toggee ay yeneen togg du ñu jege table bi. mais bu dee yii ak ay crevettes ay yàpp ay jën. boo yéeg ci plateau bi rek ñu ñëw jël ko. ah Mouhamed bul laal <laughs> donc euh, dañuy continuer. waaw au fur et à mesure continuer def yeneen waaw. waaw mais en attendant. Uh-huh. mun nga yëg ci sa plateau. daal di nga nga pare nii ah. ma pare daal di ñëw ak say invité rek. ak plateau bi voilà. <laughs> le temps suñu invité bi ñëw mën déguster. waaw donc processus bi moom la ñuy. Euh, continuer même bi moom laay def. voilà beurre bi. waaw. Euh, gis nga yomb na. waaw neex na. ku nekk mën na ko defar. Mm-hmm. te fruit mën nga ci jënd loo xamante ne du sakkan daal. d'accord voilà lu yem rek oui. Mhm. léegi da ngay téye bambu bi lekk. wala da ngay jël fourchette. xaw a da ngay bambu bi nga lekk nag. Mhm. waaw parce que ñu bëri xamuñu loolu. bu ñu paree ñu jël cure-dent bi secrétaire secrétaire. <laughs> loolu yaakaar naa Haalpulaar yee koy def. en tout cas on se retrouve tout à l'heure bii nag maa ngi ko may spécialement awo <laughs> képp kuy maa ngi lay may euh, recette bi kuy ñaareel nag. Ah, man de ñaareel yaa ngi may tëkk boobu ba léegi <laughs> man ñemeetu ma wax. moytu balaa ngay am problème lii plat aw la ñaareel xamul li <laughs> ah. ñaareel ay fruits. je n'ai rien dit <laughs> da ngay bañ mhm. ko la merci beaucoup Ndella on se retrouve tout à l'heure pour euh, dégustation euh, brochette aux fruits bi nga xamante ne tey euh, c'est ce que vous avez proposé aux téléspectateurs je rappelle que le menu vous l'aurez sur facebook.com slash good morning 2STV ce qui va vous permettre de reprendre ce même menu chez vous puisque nous sommes le vendredi c'est un week-end donc on va en profiter pour bien manger avoir le temps de s'occuper de la famille c'est important puisqu'on n'a pas toute la semaine pour le faire mais quand même le samedi et le dimanche on se préoccupe de notre famille. Merci beaucoup. On se retrouve lundi et tout à l'heure pour la dégustation.